Kolosaan ñaar. bëgg naa nag ngeen xam bëre bu metti bi may bëre ngir yéen ngir waa Lawdise ak ñépp ni ma musal a teg bët damay def sama kem kàttan ngir ngeen am fit te nekk benn ci mbëggeel ngir dajal noonu xam-xam bu mat ba xam kumpaag yàlla di Kirist ci moom lañu denc lépp lu ñuy sàkku ci xel ak ci xam-xam maa ngi wax lii ngir kenn bañ leen a nax ci ay wax yu neex jëmm ji néewul waaye sama xel a ngi ci yéen di bég ci seen doxaliin ak ngëm gu dëgër gi ngeen am ci kirist kon nag ni ngeen nangoo kirist yéesu ni borom bi dunde leen noonu ci moom sax ci moom di màgg ci moom tey gëna dëgër ci ngëm gi ñu leen jàngal ba seen xol di baawaan ci gërëm yàlla moytu leen ba kenn bañ leen a fàbbi ci ay xam-xami nit yuy naxi neen xam-xam yu mel noonu nu ngi soqi ko ci aada yu nit tëral ci aaday àddina waaye soqi kowul ci kirist ndaxte ci kirist maanaam ci yaramu nitam la matug yàlla gépp dëkk te mat ngeen ci moom mi buuru kilifa yépp ak borom sañ-sañ yépp ndaxte seen ngëm ci moom xaraf ngeen xaraf bu loxool nit deful maanaam kirist sumil na leen dooley bàkkaar ji moomoon seen yaram loolu mooy xaraf bi kirist def bi ñu leen soobee ci ndox suulaale nañu leen ak moom te it ngeen ak moom ndaxte gëm ngeen ci doole yàlla ji ko dekkal ca néew ya te yéen ñi doon dee fa kanam yàlla ndax seen mooy ak seen ñàkk xaraf yàlla dundaltal na leen ak kirist baal nu sunuy bàkkaar yépp mbind mi ñu daan tiiñal te daanu yey ndax ay sartam yàlla far na ko dindi ko daajaale ko ca bant ba kirist deeye futti na kilifa yi ak boroom sañ yi weer ci kanamu ñépp sëkkatal leen ni jaam ndax ndam la kirist jële ca bant ba kon nag buleen kenn teg tooñ ci lu jëm ci ay ñam mbaa naan ci mbagal mbaa xewu weer wu feeñ mbaa ci bisu noflaay loolu lépp nag takk ndeer la woon buy misaal li waroon a ñëw waaye lu dëggu li mi ngi ci kirist kuy bég ci toroxlu ci ngistal di jaamu ay malaaka bu leen ko may mu àtte leen kooku dafay jineer di seet lu koy feeñu bay tiitaroo xalaatam fekk xalaatu nit kese la te neen taqul ci kirist mi bopp bi yilif jëmm ji bopp bee tax ba jëmm jépp ji ci yi ak tenqo yi téye te taqale ko di màgg màgg gi ko yàlla di jox ndegam deyandoo ngeen ak kirist ba génn noonu ci aaday àddina lu tax ngeen di nangu ñu leen di teg ay sàrt yu mel nii bul fab bul ñam bul laal ni bu seen ak dund aju woon ci àddina si sàrt yooyu ñu ngi aju ci ndigali nit ñi ak seen njàngale yëf yi ñu tudd yépp des na leen njariñoo ba ñu jeex dëgg la seeni sart dañuy dénkaane Pastef ci jaamu yàlla di toroxlu ak di fitnaal seen yaram waaye sart yooyu nag amuñu benn njariñ ngir nit ñi noot seen nafsu